toujours dans votre acte du jour de ce 8 octobre 2024 ginnaaw altercation bi Amon foofa accompagné compagnie bi Aïcha Camara et l'ex-président Macky Sall qui nga xamanteni moy le docteur Yoro Dia di ancien ministre moom daal lu mu xaman ben éruption la bo xamanteni ci Pastef la jógee ci Sénégal bo xamanteni mom lañu la exporté du dara lu dul vulgarité ak li nga xamanteni dal moy brutalité bi nga xamanteni mom lañu némé ñu ñew mom mi di docteur Yoro Dia moo ko di ministre porte parole di la présence, bi ngi regretté li nga xamanteni dal moy éruption Pastef jëmale ko dal ci Sénégal bi nga xamanteni dafa éblouir lépp loo xamante ni mooy adduna bi jëm ci élégance courtoisie bi nga xamanteni dañ ko exporté jëmale ko dal ci lepp lo xamanteni vulgarité la wolé ñàkk kersa ak brutalité manam indi violence bi nga xamanteni dañ ko considérer muy ay comportement yo xamante ci kanamu ndaw si nga xamanteni def na ko ci kanamu président Macky Sall bi nga xamanteni tay symbole la pour Sénégal don dégénéré jëmale ko dal di incarne. li nga xamanteni moy mooy Pastef li nga xamanteni ni du dara lu négation Sénégal bo xamanteni ñing koy woné ndaxte bërki démb lii di xar kanamu Sénégal ay sénégalais ci boppam ñoo ko yàq ba jiñ ñi nga xamante ni mooy mensonge d'état di jiñ nga ko réewu Sénégal dafay fen dafa pëplam di fen ñi nga xamante ne mooy partenaires yi en tout cas dañ fi gis daal lépp loo xamante ne daal ñu ngi koy exporté du dara loo xamante ni maanaam day yàq deru Sénégal muy xalaatu kii di Yoro Dia